Guy Sagna ndax nee ñu nag moo santaane ngir ñu dal ci kaw militant yu Benno Bokk Yaakaar yëglekaay bi di Le Quotidien di ko feelu ne fitna gi kay ma ngay jolli nag ci ñaareelu fanu campagne bi nga xam ne rek moom la ñuy amal jamono ji ci biir Sénégal ginnaaw Parcelles Pikine moom jot nañu seen wàll ci fitna googee Mamadou Makhtar Cissé mi jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi nag ma ngay ŋàññi ci biir yëglekaay bu doy waar bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci réew Sénégal rawatina nag jàppante yi nga xam ne mi ngi dox ci diggante pro Diomaye nag ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne jël nañu lépp luy seeni matukaay ngir lépp ñu daal di koy amal ci anam bu jaar yoon yëglekaay bi di Vox Populi nag lu siwaat ci kàddu yi Makhtar Cissé yi nga xam ne rek jamono ji doxul ci lu dul jàmm ak dal fii ci réew Sénégal ma ngay woo nag ñi nga xam ne ñoo di état major politique yi nag ngir ñu ànd ko dal ci bépp ñaxtu wala fitna boo xam ne rek ñu ngi leen ciy woo lañu ñu war a def bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom nag bokk na ci teg lépp luy fitna ci suuf nag te a xool nag nu ñu mën a taxawalee ay programme yoo xam ne a Sénégal nag dafa baaxoo ci dem ci ay élection yoo xam ne rek dañu koy amal ci anam bu jaar yoon te du ànd ak benn jafe-jafe waaye lépp day tënku rek ci wàllum xarañteef xarañteef googee nag ki jàpp ne ci moom la nekk jamono ji nag moo di Anta Babacar Ngom candidat bi nag la muy laajte mooy yeneen fukki candidat ak juróom-ñett yi nag ana lan lañ defal seenub réew yër leen bi la yëglekaay bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di Les Échos nag candidat yi jamono ji nag ñu ngi wër di dagaan baatu askan wi Amadou Ba nag daal di amal ab mobilisation bu takkoo takku ca diwaan bu Mbàkke moom candidat barab bi nag ma ngay xam ne ne lépp lu fay jafe-jafe ci wàllu ndox nag dana ko wutal ay saafara Boun Abdallah Dionne nag ma ngay xam ne ne itam dana taxawal ab intercoalition avec le bloc républicain et démocratique opération boo xam ne rek ñoom candidat yi ñu ngi koy amal jamono ji ngir séduire askan wi enquête yëglekaay ne Idrissa Seck moom ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne dina dimbali bu baax a baax nag ñi yëngu ci wàllu secteur informel bi Aly wàllum gestion bi nga xam ne rek moo am ci suñuy ressources naturelles Boubacar Camara moom di xamle ci biir yëglekaay bi ne bés bu ñu ma falee nag dinaa fexe ba gune yi nga xam ne rek dañoo am juróom benn at jàpp ñaar fukki ak juróom nag di mën di jot ci wàllum éducation bi nag gratuitement lay doon amadu Ba jamono ji nag digganteem ak ñii di waa APR nag dees na doon lu ñuy xoolaat yéenekaay bi nag ne lu ñu war xoolaat kay mooy digganteem ak président Macky Sall l'observateur dellu siwaat nag ci dëgg yi nga xam ne rek moo làqu ci ginnaaw lëndëm taxawaay gi nga xam ne rek ñenn ñi taxawee nañ ko di xeex candidat Benno Bokk Yaakaar bi Seydou Gueye ak Mayel Thiam di dellu suwaat ci yëglekaay bi nag di xamle ni malaise gi ñuy wax moom lu am la ci seen biir lu jëm ci élection yooyee nag matériel yi nga xam ne rek moom la ñu war a jëfandikoo lépp daal dinay noppi yéenekaay bi di liberation na lépp lu ñu war a dugal ci biir réew mi ak lu ñu war a yóbbu ca biti réew nag lépp daanaka kilifa yi jël nañ ci seeni matukaay addu jëmale ak yéenekaay bi di réew mi quotidien ma ngay dellu suwaat nag di xam ne ni daal décret bi nga xam ne rek dafa jëm ci convoqué corps électoral bi nag fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoo di front démocratique pour élection inclusive dem nañu seeti ji waa cour suprême nag ngir ñu dàq élection yi nag ba jëmmi jamono tribune yëglekaay di ko dëggal ne fi mu toll nii kay nag déposé nañu ab recours nag jëm ci décret Macky Sall boobee nag la ñuy ñaawlu bokk na ci élection yi nga xam ne rek jàpp nañ ne am na ay rëq-rëq yoo xam ne rek war nañ koo jooyantiwaat loolee waral ba yëglekaay bi nag di xam ne ni daal jamono ji nag askan wi dañoo toog cib nen ndax ba fii nag ñu bëri ña ngay samp ab laaj ne boo moytuwul daal élection yi daañu ko dàqaat addu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew sport ma ngay xam ne tey ji naka ne Amara Diouf ndax mooy tànnee fukki di Aliou Cissé loolee yëglekaay bi moom la xëy samp ab laaj wax ci stade yëglekaay ak huitième de finale yu Ligue des champions tey jii nag Barça ak Naples nag ñoo fas yéene sëgg ci jongante bi nag sunu lamb àddu jëmale tey jii nag ci grand contre petit ñu war koo amal nag benn fan ci weeru mais atum 2024 yéenekaay bi ne Franc ma ngay attaqué Bombardier di riposté mbokk yi li gënoon a fas yëglekaay yi jàmm ak jàmm. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may